Euh, cette journée d'aujourd'hui euh, naka ngeen ko dundee euh, njeexital bi surtout quand tendance yi commencé commencé commencé wàcc. merci beaucoup du Awa sama baat bi sax dafa xaw a dee. ndax la da nga doon jubilé waaw dama doon jubilé <laughs> ci QG bi laa jógee léegi fa laa bàyyi président Lamine Thiam ak Nafissatou Diallo ak Saliou mais permettez-moi ma féliciter le peuple sénégalais le peuple sénégalais tey dafa jox benn leçon bu mag à la communauté internationale. Mhm. et ce peuple sénégalais a montré que ni mu sommes un grand peuple nous sommes une grande nation ñëpp gis nañ yi nga xam ni xew na avant élection yi jëm ci wàllu report jëm ci wàllum élection dina am wala du am communauté internationale bi yëpp doon bàyyi xel Sénégal yaakaaroon nañu tey élection yi nii du am la 24 wala bu ñu ci jógee dara mën na cee xew mais comme ni mu yàgg xewee ci Sénégal tey loolu moo xew nit ñi xëy nañu dem voté ji en masse lépp jaar ci jàmm gisuñu ay coow résultat yaa ngi di génn loolu mooy tradition Sénégal loolu lañu xam ci Sénégal donc wanewaat nañ Sénégal que ni peuple bu mag la ñu. mais est-ce que teelu jëm fa yi nekk lu am solo moo tax je demande solennellement au mm. candidat Amadou Ba d'appeler Bassirou Diomaye Faye et de le féliciter. Ah. parce que Bassirou Diomaye Diakhar fay a gagné cette élection comme ni ko. a Mamadou Lamine jàlloo tekki defee comme ni ko Aly Ngouille Ndiaye defee parce que tradition boobu ils l'ont félicité tradition boobu la Sénégal xam tradition boobu moo waral ñu def élection yi tey yu mel nii parce que pourquoi on di que Bassirou ak gagné cette élection ci premier tour mooy tendance yi daan am bu njëkk na ngay gis kii day gañe région bi kële gagné région mhm. bële wala leen mais tendance yu ci ëpp ci région yëpp wala kii gagné ay bastion mais foo xam ne xalaatuñu woon ni bastion wu sax Bassirou Diomaye fay la gagné na ko et que li nga xam ne moo jëm ci Amadou boo gisee ay résultats am lu ci ëpp ci benn côté lay jógee mais boo jëlee résultat yi génn actuellement Bassirou Diomaye Diakhar Faye a gagné cette élection dès le premier tour donc na ko Amadou Ba gé félicité parce que loolu la Sénégal xam loolu mooy tradition wu Sénégal mhm. et beneen remarque bi ñuy def ci élection yi mooy que ni les Sénégalais dañoo génn massivement surtout la jeunesse parce que lu ci bari doon doon wax que ni jeunes yi duñu voté wala na nga doon gis caravane jomaay yeeg yooyu ñoo leen ay xale ñoo leen topp ay mag topp ñu leen mais tey jeunes yi ñoo génn massivement voté et que mag ñi aussi génn dem sànq président Modou Lamine Thiam daf ma koy wax mu ne tey benn mag dafa ñëw une dame très âgée nee mu ñëw Kébémer di voté si ñu ne ko mu néew ne wan leen ma bulletin bi Ablaye Wade wax na ñu ko voté ñu ne ko bulletin baa ngi nii mu ne moom laay voté pour wane que ni tey jii nii Sénégalais yi ñoo bëggoon changement Sénégalais yi ñoo bëggoon lu bees et yàlla def na tey. bu tombee ci Bassirou Diomaye Faye et que dafa amaat beneen jàngat boo xam ne man dama ko ciy def mhm. mooy mbiru suñu borom parce que personne ne voyait Bassirou Diomaye Faye venir tout le monde pensait que c'était Ousmane Sonko Ousmane s'est ah, battu lu mu war a def ñun ñii PDS ñu jàppoon que ni c'était Karim ñu jàppoon que ni ñun ñooy participer Pastef du participer mhm. mais Dieu a fait que c'est Bassirou Diomaye moo nekk le candidat et Dieu a fait ñun PDS on a soutenu Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci li nga xam ne mooy élection yi loolu yëpp nekk li nga xam ne moo nekk suñu mbiru suñu borom muy deuxième leçon boo xam ne suñu borom jox na ko les hommes politiques élection législative yi passé y avait une liste des titulaires boo xam ne dañu koo defar ba pare yàlla neleen du nekk yéen mm-hmm. suppléants yi ñoom ñooy ñëw suppléants yooyu ñoom ñooy ñëw à l'Assemblée nationale et que tey yàlla andiwaat bi paayit yàlla wanaat ñu boppam war ne Bassirou Diomaye Faye mii moom mooy nekk li nga xam ne mooy nekk cinquième président de la République du Sénégal donc di ko féliciter aussi mais di profiter aussi di féliciter les militants mais à vous entendre parler ni ma la dégloo dégloo ko maître Tine dégloo ko euh, professeur euh, Thiam dégloo ko aussi monsieur le maire mooy que ne mënu leen nangu leneen lu dul une victoire au premier tour jamono ji non xam nga loolu mënul nekk parce que tendance yi dessiné wu nii pour nga amul lenn loo xam ne dina tax nga mun koo dabuwaat li ma la wax ne la boo jëlee région par yu ci bari même fi nga xam ne dañ jàppoon ne bastion Benno Bokk Yaakaar la sax Bassirou Diomaye Faye daf leen fa gagné. Mhm. tey Amadou Ba lu ci ëpp ci ay résultats benn côté lay jógee donc loolu dafay wane que ni l'élection est pilier mais aussi damay féliciter les militants du Parti démocratique sénégalais parce que le président Abdoulaye Wade dafa joxe consigne gars wax nañ lu nekk. andi nañu ay fausse information andi nañu intoxication mu recevoir démb Bassirou Diomaye Faye defaat vidéo hier nuit ñu jël ko partagé ko pour mu wax ne li nga xam ne moo nekk les militants du na ñu jàppale Bassirou Diomaye Faye et ñoom ñu respecté consigne boobu noonu mu nekk loo xam ni dafa nekk lu am solo parce que ñun suñu yéene c'était d'élire Karim Wade cinquième président mais Karim dafa am lu mu waxoon bi ñu ko éliminer mooy leen lu mënti am d'une manière ou d'une autre je participerai à cette élection mhm. et que tey participer na ci élection yi accompagner nañu ba Bassirou Diomaye Faye yàlla may na ko ndam léegi li ñuy xaar mooy li peuple sénégalais di xaar ci ñoom yàlla na leen yàlla dimbali ba ñu matale ko ba ñu bañ a décevoir le peuple sénégalais parce que les sénégalais étaient fatigués y avait une division profonde nit ñi di xuloo da ngay gis ñu bokk ndey ak bàyyi di xuloo nga gis ay nga gis ay relation yu bëri yàqu mhm. ndax politique tey Bassirou comme ni ko président Abdoulaye Wade wax démb ne ko boo boo bis bala yàlla dimbalee nga gagné élection yi bul fayantoo bul def leen xamal ni tu ne pas le président de camp mais tu es président de tous les Sénégalais tu es le président du peuple sénégalais. Mmh. donc ñu ngi koy féliciter. Merci. et di féliciter tous les et que di wax ne ah. aussi même les autres candidats ils n'ont pas démérité parce que ñëpp dañuy dem di uti ji waaye yàlla mooy joxe yàlla mooy xool ki ko neex mu jox ko jox na ko Bassirou ñoom ñëpp ànd gunge ko accompagner ko parce que bu amee dem. si